yow aaduna yow soo fi ñëwee kenn du wax kan mooy monsieur le ministre yàgg nga fay def ay jaloore aaduna defe naa malal nga njëkk a defal ay jaloore nga teg ma ci man jëndal ma ay sees jëndal ma baas jënd ay rajo jàkk ubbil xale yi ay couture ubbi fi école couture ñii ñi ngi jàng nañ couture ba ba am seeni diplôme xale yi jigéen ñii ñi ngi ñaw nañ ba ku nekk yaa ngi nekk ubbi nga tailleur tey defarkat yi dàll yi ñi ngay defar seen dàll ku nekk am nga diplôme xadi mii sax mi ngi yore diplôme am monsieur le ministre kontaan nañ torop yow saa yoo fi ñëwee ñu kontaan ñu ngi lay ñaanal fi nga bëgg a jëm yal na fa egg ci darajay Seydina Mohamed jidda caar yëpp amuñu moto pompe moto pompe moom amuñu ko suñu xale yu góor yi ñooy jël ay siwo di ngacc xam nga loolu dafa metti loolu la ñuy duddee ñun ci waa jidda caaro moto pompe daal ñaanuñ ko président